ok alhamdulillah wasala allahu wasallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi santar suñu boroom subhanahu wa taala ci bim ñu wërsëgalee ñu dajewaat fii gannaaw shahru ramadan ci suñu téere bi nga xam ne nii moom la ñuy topp ci wàllu fiq di téere minhajul muslim di téere boo xam ni ëmb na ay aqaid muy ay pas-pas ëmb ay adab muy ay teggin ëmb ay axlaaq muy la nga xamee ne nii mooy jukko yu rafet ya ëmb ay ibadat muy nu ñuy def ba def jaamu yàlla yi ëmb muamalat mooy naka la ñuy jëflante suñu biir yàlla dogaloon na ñu doon jàng lu aju ci koor ci jamono bi ñuy séentu weeru koor yéen ñëpp it jàpp naa xam ngeen ni gannaaw weeru koor bis bi weeru koor di jeex ca la aji at yi ca la weeru at yi du ubbi weeru at yi mi ngi ubbi ci li nga xam ne ni mooy bis ba jëkk ci shawwal kum neexoon armal jëm ci aj yàlla dogal na it téere bi gannaaw koor aj moo ci topp looloo tax bind bi ñuy dal tey mooy alfaslu saani achar fi lxajji wal umra mooy bunt bi jàngale lii nga xam ni moom mooy aj ak umra mooy kon fukkeeli bunte bi ak ñaar fi koor jeexe rek mi ngi noonu bokk na ci rasul sallallahu alayhi wa sallam lum ñu daan bégale mooy yàlla am na malaaka yoo xam ne dañuy wër rek di xool fa ñuy tudde yàlla suñ ko gisee ñu wër leen borom xam-xam yi ne place yi gën a màgg yi ñuy tudde yàlla mooy fa ñuy leerale li xaraam ak la dagan la yàlla digle ca bokk na ci loole bind bi ñu jàng tey bu ko defee yow mu yor sab téere day wax ni lii day ab teqaleele alfaslu sani achar fi lxajji wal umra fiihi ashru mawaad dana la ci jàngal fukki bind almaddatu al ula fi xukmi alxajji wal umra ana ban lan mooy atte aj ak umra ci lislaam wal xikmati fiihima ana ban xikma la ñuy mën a jëli ci li tax yàlla farataal ci ñun alxajji wal umra doonte ni xamal ni xikma bu jëkk ci mboole mi jaami yàlla mooy suñu borom yàlla mi ngi nattu ay jaamam ci kan moo ko ci déggal ay ndigalam ca la ko neex ak la ko naqari ci lam xam ak li mu xamul ci la mu am intérêt ak li mu amul intérêt yëpp looloo tax ba julit mboolem jaamu yàlla yi la muy jëkk a laaj mooy atteem amma su xamee xikma ba da koy sawarloo su ko xamul it du tax mu wàññi calam doon def dara bokk na ci jëkk mooy xukmuha xukmuhuma lan mooy attey aj ak umra alxajju faridatu llahi ala kulli muslim wa muslima istataa ilayhi sabila mu ne aj day farata yàlla la bu mu gàll bépp julit bu góor ak bu jigéen boo xam ne am na kattan ci dem aji ji am na kattan ci dem aji ji li qawlihi taala walillahi ala annaasi xijju lbayt man istataa ilayhi sabila suñu borom mu ne bokk na lu mu am ci nit ñi nit ñi dem aji ji néegam bu màgg ba di kaaba ga képp koo xam ne am na kattan ci loolu am na kattan ci loolu kattan googee dana ko leeral ci kanam wa qawli rasul sallallahu alayhi wa sallam buniya al islaamu ala xams islaam day dañ koo tabax ci juróomi mbir shahaadati an laa ilaha illa allah mooy seede ne yàlla rek mooy kii yoo ñu koy jaamu wa anna muhammadan rasulullah seede ne muhammad yonenti yàlla la wa iqaami salaa taxawal la nga xam ne muy julli wa itaa'i zaka joxe azaka wa xajjil bayt ak aj néeg ba wa sawmi ramadan ak woor weeru koor lii mbokk dañ ko war a jàngal suñuy njaboot ku nekk ci ñam xam ko mooy diini lu yaatu la lu bari la waaye juróom yi moom kenn amul droit di ko réere juróom yi kenn amul droit di ko réere naka noonu it noonu lañ ko war a suuraale yéene koo def comme ni ñu yàlla boole ci ñuy julli ñu yéene bokk ci ñuy aj màkk boo xoolee sa téere mu ne wa huwa fardun marratan fi l umr aj googee benn yoon lay nekk farata ci dund doomu aadama bi li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alxajju marra aj day benn yoon la fa man zaada fa huwa tatawwu képp koo xam ne da caa dolli loolu coobere la ca loolu it xéewal gu rëy gu yàlla defal ay jaamam ndax bu doon te ne dane nii julli mel nga xam ne bés bu nekk dañoo war a julli bal waxtu wu waxtu jotee ñépp war a julli su doon yàlla dafa farataal ne aj màkka bu jotee yéen jullit ñi yéen ñépp ku amul ngant na dem loolu doon na metti lool fa lillahi alhamdu suñu borom mi xam xikmaam xam ay jaamam xam ne tey jii dem nañ ba jamono boo xam ne gis nañ ni même ñooñu mën a aji ji sax dañ leen di bloqué utal leen ay quota ndax buñ ko deful kon Makka kenn dutu faaj suñ jëluloon ay mesures ci bloqué nit ñi kon nit ñi sax duñ mën a aj ndax bari waay loole suñu borom loolu la xamoon moo tax faratal ko benn ci dundu doomu aadama bi mu ne gayra annahu yustahabu takraaruhu kullu xamsati awaam mi ngi noonu kulla xamsati awaam mu ne day sopp nañu nit ki am kattan juróomi at yu nekk su mënee mu aji li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jal ca la yonent bi nettali ne jële ko ci boroomam inna abdan saxaxtu lahu jisma e way jaam bi ma wéral yaramam wa wassaatu alayhi fi lmaisha yaatalal ko ci ak dundam yamdi alayhi xamsatu awaam muy rombale ci moom juróomi at laa yafiddu ilayya la mahrum juróomi at yoo xam ne du ñëw ziyaar si sama néeg bi kookee day nekk na koo xamee ni nii kooki ku ñu xañ la yiw yu màgg ci ay yiw donte ne ni xadis boobu xadis bu siiw la waaye nag xadis bi moom nekkul xadis bu wér soo delloo ci borom xam-xam yi nga xam ne dañuy sukkandiku ci seen wérlu xadis xadis bi boole wuñ ko ci xadis yi wér rawatina al buxaari ak ñu mel ne moom ñu ngi noonu su ko defee daal la wér mooy la ca kaw ca moo di ne ne képp koo xamee ne nii jël nga dem umra ji dem aji ji ci sa coobare loolee moom ay ngëneel la amma nag fokk juróomi at yépp boo ajiwul da ngay am daan wala dafa am looy ñàkk loolee moom dañuy gis na wérul mu ne nekk amma al umra fa hiya sunnatun waajiba bu dee lii di umra nag moom sunna la boo xam ne bu war la borom xam-xam yi suñu waxee sunnatun waajiba mooy dañu naan dafa mel ne farata te mooy benn julit bu amul ngant amul droit di ko desal gannaawam moom la ñenn ñi di wax sunnatun muakkada ngi mel ni julli korité julli tabaski ak yu demee noonu su ko defee li qawlihi taala wa atimmu alxajja wal umrata lillah yàlla mu ne matal leen aj te matal umra te def ko te yàlla tax kon ndigalu yàlla la ci mu ne dem leen aji ji léegi nag dem leen umra ji ba tey am na ci borom xam-xam yoo xam ne dañoo jàpp ne farata la ci ku ko man comme ni aj nekk farata donte ni moom dafa jël la ca gën a digg doomu mooy ñi ne sunna la bu ñuy feddali boo xam ne yeyul ci benn julit mu di ko sàggane wa qawli rasul sallallahu alayhi wa sallam xajjun mooy xajja an abiyika wa tamir yonent bi day ba soxna sa ñëwee wala waa ji ñëwee di ko laaj ci baayam day mënatula aj liman sa'alahu inna abi sheykhun kabir sama baay day mag bu magget la laa yastati'u alxaj wala al umra wala za'na sama baay munta aj munta umra mënul nekk di déplacé wu yonent bi ne ko kon demal nga ajali ko demal nga ajali ko doonte ne dina ñëwaat ci kanam loolu day wone ni doomu aadama bi bu dee dafay dund ca moom mënul ajal boppam dagan na jege ñaaleem dem ajali ko bu dee dafa mën a aj nag loolee moom moom rek moo ko mën a defal boppam mu ngi noonu ba doon dafa faatu it lu mel noonu mënees na ko koo defal amma bu doon dañuy laaj ban xikma la ñuy mën a gis ci yàlla tëral aj ak umra mooy xikmatuhuma min al xikmati fi lxajji wal umra bokk na ci xikma bi nekk ci aj ak umra tatxiiru nafsi min asaari zunub mooy laabal bakkan ci jeexitalu ay bakkaar li tusbiha ahlan li karamatillahi taala ngir bakkan boobee doon ku yeyoo teraanga ya yàlla di wàcce ca jaamam yu laab ya fi daari l axira ca kërug alaxira gee nga xam ne fa la ñu jëm wa li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man xajja hada al bayt falam yarfus walam yafsuq xaraja min dunubihi ka yawmi waladathu ummu rasul sallallahu alayhi wasallam nee na ki nga xam ne daa aji ci néegu bu màgg ba waxu fa benn wax bu ñaaw defu fa benn jëf bu ñaaw ku mel noonu day day mel ni keroog bi muy génn ci biiru yaayam te la shakk ne kii génn ci sa biiru yaay yaa ngi génn set wecc ci ay bakkaar amul benn bakkaar boo xam ne topp na la ca loole loole da ngay gis ne rasul sallallahu alayhi wasallam daana wax ni kii nga xam ne dañ ne doomi njaaloo la amul benn bakkaar bu koy topp ca la ay waajuram def mi ngi noonu doomu aadama yépp a yem ni ñuy juddoo doomu aadama yépp dañoo judd ci fitra yàlla teg ci ñoom mbaax doomu aadama yépp dañoo judd ci set wecc ci bakkaar ak ku leen mën a jur ak nu ñu mën a juddoo loolu la ab julit war a xam kon bind bu jëkk baa ngoog suñu laajoon luy atte aj ak umra xeet bi yépp dëppoo nañ ci ne aj day farata la heure boo xamee ni mënoo ko ca am ko la ko mën a taxawal da nga koy sant koo ko taxawal la ko umra sunna la bu boo xam ne bu ñuy feddali la képp koo xam ne mën na ko da ko war a taxawal waru koo saggani loolu mooy bind bu jëkk bi almaadatu saaniya bindu ñaareel bi fi shuruuti wujubihima ana yan charte ñooy daje bañ ne kii kët aj makka war na ci moom yushtaratu li wujubi alxajji wal umrati ala almuslim الشروط الآتية ديسنا شرطال ci nam nekkee faratay aj ak umra ci julit charte yi mu lay bëgg a jàngal ci kanam bi ci jëkk mooy al islaam fala yutaalabu gayru lmuslim bi xajjin wala bi umra ab julit la ñuy wax na dem aji ji amaa keneen koo xam ne di jullit kenn du sàkku ci moom na aj walla mu umra ndax bu ko defee it baaxul looloo tax ab yéefér bu demoon aji ji makka ba pare bis bu tuubee dugg ci lislaam dañ naan ko demal nga aji ji waat mu ne wala bi gayrihima min anwaa'i l ibadat waxuma aj ak umra waaye leneen lu dul aj ak umra it kenn laaju ko yéeféer mu koy def ndax bu ko defee it du baax isil imaanu chartun fi sixati al amal wa qabuliha la nga xamee ni mooy ngëm yàlla mooy charte ci ngëm di wér ci jëf di wér mooy charte ci yàlla di ko nangu loolu it moo tax julit day gëm ne ab yéeféer mbaax gu mënoon a def mbaax googee du ko jëriñ mukk ëllëg yowmal qiyaama mi ngi noonu sarxe woon na ay milliards ndimbal bu ne def na ko ci doomu aadama yi su gëmul yàlla du ko jëriñ dara ñaareel bi al aql isla taklifa ala al majanin ki nga xam ne aj da koo war mooy ki ànd ak xelam amma kii nga xam ne daa teqalikoo ak xelam ku mel noonu aj nekkatul farata ci moom su doon daa am alal ñay dem di ko ajali it dañ koy ajali ci coobarewu waaye maadaama moom xelam teqalikoo na ci moom niñ ko teggili julli ak koor noonu lañ koy teggilee li nga xam ni mooy aj màkka googee ñetteelu charte bi tax aj war mooy albuluux mooy nit ki majeur is la taklifa ala sabiyin xatta yabluga ndax xale bi nga xam ni majeuragul amul benn responsabilité bi yàlla di teg ci kawam lu dul daa majeur li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rufi alqalamu an salaasa yonent bi nee na yëkkati nañ xalimak di teg jëf ñett ñii anil majnun hatta yafiq ci teqale ko xelam ba baa muy ximmi ca loola wa anil naim hatta yastayxiz kiy nelaw ba baa muy yeewu wa ani sabi hatta yaxtalima ak xale ba baa muy gént mi ngi noonu walla boog mu am ay karaw yu génn ca naqam loole di varier selon nationalité yi mi ngi noonu kon kii nga xam ne mooy xale aj màkka waru ko waaw léegi su ajee màkka nag su ajee makka dana am tuyaabay aj makka waaye tuyaaba ja rek lay am farata ba teggeekuwu ko su majeuree daa war a dem aji jiwaat su ko defee xale mboolem jaamu yàlla yi muy def ay naafila la yàlla da ko koy bindal julli yaag koor yaag sarxe yaag lépp yàlla da ko koy bindal bindal ko it way juram wala ñaka ca teete amma su demee ba majeur nag ca la ko yàlla teg responsabilité loo xamee ne nii bu ko defee ñu considéré ne lii farata la su ko deful ñu daal di koy teg la nga xam ne mooy ay daan loolu ñu wax ca jaamu yàlla ya la ñuy wax ca bakkaar ya tamit mooy xale bi majeuragul bakkaar yam def yàlla du ko ko toppee amma ñi nga xam ne ñoo ko yor nag war koo teete ñooñi ñoom dañu am responsabilité ni noonu ci ñekk sàmm xale bi ba mu ba mu bañ a dem di def jéye ya nga xam ne def na ko ñeenteel bi tax ñu ne kii kat aj màkka war na ci moom mooy al istitaa mooy waa ji mën a aji ji nag wala soxna si wa hiya zaadu wa raaxila te mooy waa ji am yóbbal bu mat sëkk bu mu mën a aji jee am waruwaay bu ko mën a yóbbu ca màkka gëm jëm li qawlihi taala man istataa ilayhi sabila koo xam ne am na kattan jël yoon bu ko yeggale ba makka fal faqir lazi la maala ladayhi faqir bi nga xam ne amul alal jum yor yunfiquhu ala nafsihi asnaa xajjihi nga xam ne amul alal jum yi mën a dépense ci boppam ci biir aj ga muy aj wa ala iyaalihi in kaana lahu iyaal ak lu mën a bàyyee waa këram ñu mën koy dépensoo ba mu ñëw su dee ne daa am njaboot xaysu tarakahum waraahu fekk da leen di bàyyi ci gannaawam ki amul lii laa yajibu alayhi xajjun wala umra képp koo xam ne amoon nga billet sec ci aj makka waaye boo demee makka looy lekk yóbbu woo ko njaboot gi nga bàyyi gannaaw bay amoo loo leen fi bàyyee ku mel nii dañ naan at gi waragu ko at gi waragu ko ngi noonu wa kama wa kaza man wajada maalan li nafaqatihi wa nafaqati iyaali beneen waaye ngi moom am na alal jum mën a dépense gu njaboot njabootam mën a dépense walakin lam yajid ma yarkabuhu waaye amul lu mën a war ba makka wa huwa la yaqwa ala almashi te amul kàttan lu mën a dox ba makka ku mel noonu aw wajada waaye am na kat wala am na kàttan walakin tariqa gayra mamun gayru mamun li nga xam ne mooy yoon ba amul kóolute bi xaysu yaxaafu fiihi ala nafsi mu ragal ci bakkanam aw maali wala alal fa innahu la yajibu alayhi alhajj ku mel nii ba tey aj màkka du war ci moom wala al umra umra du war ci moom li adami istitaatihi ngiree ñàkk kattan gam ñàkk kattan boo koy tënkaat lan mooy kattanu aj màkka kattanu aj màkka mooy waa ji day wiir ci yaramam mën a supporter aj am lu mu yóbbaloo suñu borom mu ne tazawwadu yóbbalu leen fa inna xayra zaadi taqwa la gën li ngeen di yóbbaloo mooy ragal yàlla am lu mu bàyyee njabootam su dee ne am nag njaboot yoon wa muy jaar doon yoon wu wóor waa xam ne nii ragalul ni su ma demee kat mën nañ maa rey ci yoon bi mu am la nga xam ne nii dana ko war yii mooy daje su ko defee ku mel ni ñu ne aj day war na ci moom mi ngi noonu mbokk lii gannaaw ba bu lay jàngal la nga xam ne mooy ñetteelu bind bi ñetteelu bind bi mooy fi targhib fi lxajji wal umra mooy ñaaxaate xemme ma tey ci nit ñi war a jóg aji wala umra wa tarxibi min tarfihima ak tiital nit ñi moytuloo leen ci ñu koy bàyyi ñaari baat yooyu jege yoo la waaye tarxib mooy xemmem loo tarxib mooy moytuloo tiital loo mi nga noonu من لقد رغب لقد رغب الشارع في هاتين العبادتين العظيمتين خمم لول لول لدي الشريعة كنياري جامي الله يو مجي من نونو وحص على فعلهما نياخات لول كجلد نجوك دفكو ودا إلى ذلك بأساليب متنوعة woote jëme ci loolu ci ay melokaan yu wuute lool waa mi ngi noonu wa adraba min albayaani muxtalifa dóor ci ci ay leeral yoo xam ne nii yu wuute la min zalika qawluhu sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci loolu la yonent bi wax ne afdalul amal imanun billahi wa rasuli li gën ci jëf yépp mooy gëm yàlla gëm yonent yàlla summa jihaadun fi sabilillah gannaaw ba nit ki jóg jihaad ci yoonu yàlla summa xajjum mabruur gannaaw ba aj makka boo xam ne daa mucc ci bépp jëf bu ñaaw ak bépp wax bu ñaaw wa qawluhu man xajja hadha albayt falam yarfas walam yafsuq xaraja min zunubihi ka yowmi waladathu ummu loolu jàngoon nañ ko ci gannaaw ki aj makka ba ñëw dafa mel ne keroog lay doog a judd wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam alhajju almabruur laysa lahu jazaun illa aljanna li nga xam ne mooy at gu mucc ayib amul benn pay xanaa lu dul nit ki bu dee yàlla tabbal ko aljanna wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam jihaadul kabir wa daif walmara alhajjul mabruur la nga xam ne mooy jihaatu màgget yi ak ñi néew doole ak jigéen ñi day moo ñu fexe ba aj aj boo xam ne daa mucc ayib wa qawluhu al umra ila al umra kaffaratun lima baynahuma la nga xamee ne nii mooy aj ak umra day dana far lépp loo xam ne nekkoon na seen diggante ci ay bakkaar wal xajjul mabruur amma nag aj gu mucc ayib laysa lahu jaza du ko ñel benn pay illa aljanna xanaa lu dul aljanna kese loolu mooy xemmem boobu xemmem loo bi kama rëhëba min tarkihima noo nit la islam tiitale moytuloo ci ñu mën a aji ca aji wuñu wa xazara min taqaa'isi an fi'lihima moytuloo lool ci nit ki di bàyyi gannaaw di des gannaaw ci jëf la nga xamee ne nii moom mooy ñaari jëf yooyee bi ma la mazid alayhi te loo xam ne boo ko dégloo da ngay xam ne day leneen lu ñu mën a teg ci loolu amut fa qaal mu ne wax nañ ne man lam taxbisuhu xaajatun zahira koo xam ne ni daal fegu ko aajo boo xam ne daa feeñ ñépp xam nañ ne kii day muntaaji aw maradun xaabis wala feebar boo xam ne moo ko tënk aw manun min sultaan wala tere goo xam ne buur moo ko ko tere sultaanin jair buur bu jeng koo xam ne lii lépp amul walam yaxuj ca moom demul aji ji fal yamut inchaa yahudiyan aw nasraniyan kooku day na bu ko neexee na dee mu nekk ab yahud wala mu nekk nasaraan ay deewul ci jukkoy lislaam mi ngi noonu noonu la ñu gisee ko min ali ibn abi talib radiallahu anhu mu ne man malaka zaadan wa raxila koo xam ne am na yóbbal am na lu mu war tuballighuhu ila albayt lu ko mën a jotale ila baytullahil haram te léegu yàlla ba ñu war maal walam yaxuj ba pare moom aju jiwul fala alayhi an yamuuta yahudiyan aw nasraniyan ku mel noonu dara nekkul ci mu dee nekk yahud wala nekk nasran wa zalika li qawlihi taala walillahi ala annaasi xijjul bayt ci borom yàlla mu ne nit ñi day yorol nañu yàlla yàlla am na ci nit ñi ñu ajul ko néegam ba man istataa ilayhi sabila képp ko am kattan ca loole wa man kafara fa inna allaha gani ganiyun anil alamin ku weddi nag nga xam ne yàlla day dafa woomle ci ay mbindaa fanam mi ngi noonu amma ki di omar وقال عمر رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كانت له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين mu ne man day doon naa xalaat sax téema yónni ay contrôleur ñu dugg ci dëkk yépp kuñ fa fekk ne mi ngeeg alal ba pare moom aji jiwul ñu teg ko impôt bi ñuy teg chrétien yi ndax ku mel noonu day nañu xam ne kii daal nekkul ab julit maahum bi muslimin ñooñu daal nekkuñu la nga xam ne ay jurit lañu lii mbokk heure buñ ko gisee it dafay doon loo xam ne luy war a ñaax la ñii nga xamee ne nii mooy sunu lu bari suñuy ndaw suñu borom yàlla day yaatal seen wërsëg ñoom salaire yu baax tabax ay kër yu baax yor ay oto yu baax mais seen mentalité mooy aj màkka moom da nga war a dem ba nekk màgget doo ko def loolu nag ay njuumte yu bëri am na ci te mooy xamoo ndax da nga bokk ci ñiy màggetam déet xamoo yan gàllankoor mooy ñëw ñun dund nañ loo xam ne suñu maam mosuñu ko xalaat te mooy ñaari at yoo xam ne amul kenn ku jóge bitim réew aji si mag du ñu ko 2020 du ñu ko 2021 gis ngeen ajug ren gi ñu ngi bloqué ne ku am 65 ans doo aji ji yooyu yépp kon day wane ne ndawal julit war na fexe góorgóorlu kémtalal kàttanam balaa denc yenn somme yi di xalaat ay projet yu dul jeex moo xam ne bokk na projet des projets mooy li nga xam ne waajib la ci moom te mooy at makka mu jéem koo def su ko defee ba pare nag àdduna moom du jeex projet àdduna moom du jeex ba ba baa ngay sangoo suuf lii kon mbir la boo xam ne ñu ngi koy fàttali di ko ñaaxaate xam naa incha allah dañuy doyloo loolu su bilal noddee ñu jéem a xool ndax dana am laaj yu jëm ci yi wala laaj yu jëm ci yeneen wallahu subhanahu wa taala aalam incha allah comme niñ ko waxe woon moom su darsi bi passé ñu amee laaj bu jëm ci darsi bi xayru amee yeneen laaj it yu ko génn loolu am gars yi ñoom wa wa wa dañoo wa wa waajalu ñu at gi waaw waaleykum salaam wa rahmatulah waaw waaleykum salaam waaw waaw waaleykum salaam wa rahmatulah waaw salaam waa ji nga xam ne dafay at te bi muy at dafa bàyyi ay bor loole moom du tee ajam baax na bokkoon na nag la nga xam ne moo nekkoon priorité ci moom mu fayoon ay borom waaye at ji moom baax na même boo demoon ci nit mu lebal ko bii mu dem aji ji at ji baax na donte ne dañ ne loolu wóoru ko yàlla tegu ko loolu waaye li ñu bëgg a wax daal yóbbaale bor makka te taxul ñu ne at gi baaxul déedéet bokk na li gën moo dina ne bor bi moom farata la bu la yàlla gàll at gi du farata tànk mënoo ko kon fayal bor yi ba pare waajal ba mën a aj sans bor nga aj sans bor loolu mooy la gën waaye nag teewul bu aja it aj ga baax na wallahu subhanahu wa taala aalam mi ngi noonu naam bismillah waaw waaleykum salaam waala ku li xaal jàpp naa ne question bi benn question rek la lu mën a doon dafay am lu gën ak loo xamee ne nii lu mën a nekk la bokk na li gën mu nit ki nga fay say bor doog a aji ji mooy li ñuy wax parce que fay bor bi moom farata la nit ki fay ko aj màkk gi tànk mënoo ko nekkul farata ci yow loolu booy lee dañ koy wax wàllu lu gën donte na bor nag dafa bëri ay forme ndax ki nga xam ne dafa leboon kër nga xam ne nii ay 15 ans lay toog doo koo fay wala comme ni nga waxee wàllu commerce nga xam ne yow da ngay da joxe ay caution grossiste ñu lay jox yooyu day rouler bor yooyee bokkul ak ki nga xam ne da da da la lebal bor ca nga war koo fay bor boobee mu nekk bor direct yooyu la ñuy wax mais am na yenn façon bor yoo xam ne nii soo ko bëggoon di xaar du jeex ba ba mukk ci gàttal daal moo di ne ne bor yoo ak nu mu mën a tëddee nattalaam da nga ko leboonam lu mu mën a doon jotewul ak aj màkk gi dara képp koo xam ne aji ji na màkka jaare la ko na ko ko lislaam tëralee am na aj màkka bor ba moom des fa wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam waaleykum salaam
boo xamante ne amul xortaba benn turu julli jaay mbaamam jox ko ne mun am ñeenti def kàttaba ne boobu islam ko mu ne ñaar laaj bi mooy koo xamante ne mun dafa tàkk tàkk di jabar man ndax mu ciy dara
wala kulli xaal bari na ay laaj yu ñuy laaj du nekk laaj yu am laaj yooyu tamit képp koo xam ne xam na ko na koy moytu na koy moytu lu ci bari laaj yooyu ñuy laaj du laaj yu am li ñuy bëgg a wax daal mooy nit ki buñ ko mayee xaalis ca ka ko may xaalis bi moo moom xaalis ba xaalis ba dagan bu dee ne ka ko may xaalis bi moo moom xaalis ba sàngaraam la jaay mbaamam la jaay xaalis ba dagan na mu jël ko bañ koo jël nag mooy la gën wala il faut ñu bàyyi ci xel bu baax ki PMI ak PMM ki jaay sàngaraam soxna si njaaloo xaalis bi moo ko moom mu jël ko may la ko xaalis ba bañ koo jël mooy la gën ndax jël ko ca xam fa mu jóge loolu encouragé ko ca la muy def la te moom it mën naa jàpp ne lii kat bu ma ko defee maa ngi ñoom ñoo ko séddoo mi ngi noonu mi ngi noonu amma jimmi jël ji it nekkul lu xaraam loolu kon ki jaay maam koo xam jox la nga jënd xaru tabaski am nga tabaski beneen bi mooy kii daa dem sàcc daa da ciy takk la nga xamee ne nii moom mooy jabar ñi nga xamee ne nii ñooy kay may jabar day suñu xamee ne alal jii mu leen di jox alal di sàcc la amuñu droit may ko jabar ci loolu amuñu droit may ko jabar ci loolu ndax alal ji nit ki moomul bu la ko nit ki joxee amoo droit jël ko muy différence entre li ñuy tuddee alal ju araam ci boppam ak araam alal ju araam ci faggoom biteel bi sàngara moo ci nekk ki ko moom may la ko daganul nga jël ko waaye ndox moo ci nekk moo ko moom dagal na nga jël ko mais su dee ne tey dafa dem jël ndoxum jaambur may la daganul nga jël ko ndax moomu ko loolu moom la ñuy wax ci wàllu googee ki nga xamee ne nag moom ci boppam moo dem moom sàcc ab sàccam dem moom joxe ne can may nañ ko soxna seede yi wali yi may nañ ko seede yi may nañ ko sëy bi mu sëy moom dañ naan dagan na càcc gam sàcc nag loolee nekk càccu boppam boo xam ne moom bàkkaar la bu koy topp mais daal bépp sëy boo xamee ne nii moom ay wëli yu toog nañu may nañ may nañ ko même buñ ca dugalul can sëy boobee dagan na heure boo xamee ne nii am na can mu joxe can gi bu dee woon ci joxewul can gi ñu génne ci liñ koy donn doog a joxe loolu daal la ñuy wax ci wàllu googee wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xaal nañu xam ne mbokk bu dee ne laaj laaj yi nekkul lu amu amagu nit li nga xam ne nii moom mooy aj makka rek bokk na luñ ci fàttali ne suñu bàyyi ibrahima moom mooy ka nga xam ne moom la yàlla santoon mu tabax kaaba ga moog doomam ja ismail bi ñu paree suñu borom ne ko ibrahima wooteel nit ñi ñu ñëw aj mu ne ko yàlla kan lay woo ci désert bi mu ne ko wooteel rek yàlla mooy jottali bokk na ay yenn tegtal ibrahima bi mu wootee aj mboolem ñi yàlla dogaloon ña xam ne dañuy aji ji wuy nañ ko ci alamul xayb loolu moo tax ba kiy aj màkk lu muy wax labbayk allahuma labbayk mi ngi noonu julitit du jàpp mukk ne ñiy nar a aji ji makka yàlla xam ne leen tax ba du def effort déedéet suñu borom yàlla mooy dogal yow julit sa warugar mooy lan mooy fexeel ba yow def say sabab ñaata ñoo dem ba makka ci aju wuñu kenn mënu laa wax lu de mel noonu ñaata ñoo dem ba yëgg makka ba pare ajuñu te pourtant ñu nga jóge seen réew ñëw ba makka ajuñu an ci dégg benn ci seen imam yi muy wax histoire bu doy waar benn jigéen boo xam ne mi ngi jóge Indonésie su ma juumul àll ala kulli xaal ci pays asiatique gi la jógee dafa dugg masjidul haram bu mu ñëwee ba seen kaabe gi rek mu sujud daal di toog sujud sujud boobee yàgg-yàgg mbokk yi ñëw wër ko ci sujud bi la faatoo mu ne ñoom bi ñu laajee mu ne ñu ne soxna si trente ans ngi mi ngi dajale pour aj makka trente ans lu mu liggéey ku muy waxal paasu makka lay dajale trente ans ba yàlla may ko mu am billet bi mu ñëwee bën a cëpp fi mu jàkkarloo kaaba gi crise cardiaque tension lu mu mën a doon fa mu jàkkarloo kaaba gi daal fa la sujjóot ngir sant yàlla foofu la yem yaa ngi dee su ko defee kon yow sa warugar moom mooy la nga xam ne nii mooy def effort def effort pour dem makka te it wàllu googu booy xool histoire suñ mbokk asiatique yi raw nañ fa lu bëree bëri donc day gis pauvre yu bëri di sacrifier am na benn couple boo xam ne nii imam boobu di wax loolu nee na biñ ñëwee ci restaurant bi am ku leen proposé fayal leen benn añu seen ceeb yooyu ñu ne duñu lekk mu insisté duñu lekk mu ne dañoo bañ lu tax luy mu ne bu ñu bañ buñ ko lekkee am problème ca Kaaba ga lañ jëm mu ne dix ans lañu sacrifié seen añ pour dajale passe Makka dix ans couple bi yëpp masalan tey ñi ngi doon ñi ngi doon dépensé añ deux mille ñu ne léegi dañ bàyyi añ bu ñu xëyee ndekki reer sacrifié añ pendant dix ans ngir am passe pour dem Makka gis ngeen yooyu yëpp ay ñaaxaata la yoo xam ne nii ñu ngi koy ñaax mbokk yi yal na yàlla yombal ko ci ñun ca nanguluñu ko te buñ koy def fekk yàlla rek a tax wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain